bon man mënuma apprécier naan sévère na wala sévère. waaw mais noonu nga ko gisee quoi. waaw man na ma ko gisee xam nga ku yor di saytu loolu war dem bay juger su demee bay apprécier joxe loolu man je pense que du ma nekk fii di naan sévère na wala sévère. kon na nga ko rafetlu quoi. man euh, du ma ne rafetlu mais. toujours lu may wax man ñaanaluma kenn mm-hmm. mu lii lu mel ni dal ko mm-hmm. mais nag aussi su demee ba un juge dem ba prononcé wu loolu dem ba dogal loolu du ma nekk di naan waru koo def wala war na koo def parce que nit ku nekk ak sa liggéey bon yow APR nga nekk boobu bu léegi bu ñu kiiwee procès bi kenn déggul waa APR Benno Bokk Yaakaar ñu wax si luy expliquer loolu non luy expliquer lu ñuy wax ni soo waxee ñu naan da wax mais mbir mi laal na politique euh, laisse-moi Manela euh, vous savez que les gens ont tendance à fustiger la justice di fustiger euh, ni muy doxee justice bi or que je pense que justice bi dafa mës a juger ay procès yu gën a garaaw yi bii dañ ko médiatiser de telle sorte que moo tax mu bari bruit mais justice bi je pense que fu mu taxaw musu faa bouger justice bi mu ngi def liggéeyam comme ni mu ko war a defee mais les sénégalais la majorité les autres qui sont de l'autre côté farfarlo bi moo tax ñuy fustiger di critiquer la justice or que loolu c'est une honte pour notre